ñoo ngi lay fay. Euh, comme yàlla def na yaay porte parole parti socialiste ñu gis ni que Tanor tey lañu tey dafa mu bés mais dañu gis ne que ba tey parti socialiste mu ngi dund ci ay jafe-jafe tey bés bi tey est-ce bu ngeen sañoon tey du ngeen ànd yéen ñëpp comme ni ngeen ko daan defee. tey Sénégal moo am bés ndax Sénégal mooy sos tey lu musul am tañ am ci yaakaar développement wu Sénégal kenn mënu ko xalaat fexe ko. mbaa nga saytu émergence di ko liggéey te gox yi gox goxaan yi dëkk yi quartier yi tund yi émerger wuñ yokk bi nga xamee ne Sénégal mi ngi tàmbali décentralisation ba nëgë ni ci jamonoy ab Senghor ab Diouf Ablaye Wade tey Macky Sall ñëw am ay jéego yu bés yu mu bëgg sumb ñu xalaat ko Sénégal yëpp man koo sos au conseil des collectivités territoriales ñi fal juróom-ñett fukki au conseil Tanor bokk ci ñooñu président de la République mi nga xam ne mooy définir pour de la nation seet ñooñu ñëpp ne tanoor laa yaakaar ne moo war a mën a jiite kuréel googu loola nag ñun waa parti soliste ak fu nit mënta dëkk ci parti bi sax la ci ñun mbégte la ci ñun ndam la ci ñun waaye sas la ci ñun sas sas la ci ñun loolu moo tax fii mu toll nii. ñoom ña ngay sos seen kuréel waxtaan waaye nag buñ ko fasee euh, sa tab ba pare dina ñëw fii waa parti socialiste yëpp wan ko ne ko ñoog yow ñoo ànd ci lii ñoo ko bëgg. mais du waa parti socialiste yëpp monsieur le kooku sa waxi bopp la. Hmm? boobaa dina fekk Khalifa Tanor Bamba Fall. xam nga balaa nga taj gémmiñu sàmm da ngay xam xaar ba mu wëlis da ngay xaar ba waxtu jot. waaye ba tey ñu gis ni Bamba Fall mu ngi kon ne attaqué contre seen secrétaire général Tanor gis nañu démb mu ne dafay porte plainte contre Ousmane Tanor Dieng ak discipline de parti bi parti socialiste am yéen benn appel su képp ku bokk ci parti socialiste man maay sa kilifa yor sa part sa sa sa baat kon bésu mbégte bu toll nii bu la neexee nga laaj ma laaj bu la neex waaye man li nga xam ne moom la Ndiaga Mbaye wéy laa lay wax yaa fi war a wax kaay wax bu mu la dara wax loo warta wax. man bésu ñaan Sénégal am ndam ci Haut Conseil bi ci laa toll waxi picc waxi kasaw kasaw du ma ci tontu. waaw monsieur le maire ginnaaw bi nga jàppee ne ñoom ñooñu li ñuy wax ay waxu kasaw kasaw la gis nañu ñoom fan yi ñu ngi dugg ci àll bi. non sa wax yow laa xam <laughs> gis nañu fan yi ñoom ñu ngi dugg ñoom ñu ngi dugg ci àll bi euh, maanaam bëgg a créer beneen forme parti socialiste des valeurs pour dem ak euh, maanaam ak bannière boobu ci législatif yi. yow dangay ñëw pour def communication ñooñu boo demee nga laaj leen seen wax ñoom man waxuma ci waxu jàmbur waxu parti socialiste ak li parti socialiste xewloo ci laay wax. kon daal li xew tey mooy. li xew tey mooy Sénégal a ngi sos au conseil des collectivités territoriales Sénégal yëpp bàppeeku waa Kaffrine yëpp ñëw Sénégal yëpp di ñëw fii pour wax président Macky Sall jaajëf waaye pour wax monsieur le président Ousmane Tanor Dieng premier maire de Nguéniène premier président du conseil des collectivités territoriales ñoo ngi yow ba Sénégal jëriñu ci lii ñu sos. mais ñaan nag Tanor ñoo naan jërëjëf wala parti bi yëpp ñoo naan jërëjëf monsieur le maire. yaay seet maay seet jërëjëf.